salaamaaleykum à tout donc euh, ma ñëwoon di attirer attention suñu njiit yi par rapport à la situation bi nga xamee ne mooy moo am fii si si Liban et ma gis ne bon benn information boo xamante ne peut-être euh, mun nañ ci téye et que communauté bi bari nañ fii et que nous un pays yi et que nous sommes là ah, nous sommes dans un pays de guerre pays nous tout le monde les infos ça peut déclencher une ben, affaire guerre ne pourrait pas s'en sortir ñu nekk fii yëpp c'est des footballeurs professionnels wala ñu fi nekk di liggéey personne n'a un problème de billet d'avion kenn amul problème mu billet d'avion pour génn mu wala c'est sûr mais euh, lu ñu bëgg rek mooy suñu autorité yi ñu ñu jàpp si parce que nit bëri nañ fii et que lii bu déclenché peut-être que ñoom sax bu ñu bëggoon jël si dootuñu ko mën et dañu nekk fii ak suñuy nawle te ñu bëri ils ont réparti